jërë ngeen jëf taximan bi wàccoon tali bi yéeg ci bi passerelle ba teera ji nag moom police observateur nañu waajoojee Ousseynou Diop la tuddoo Morolan la dëkk keroog ba muy taw circulation am ci dëkk bi wata yi na tàcc bi ne woon tekk ba mu ne yàng mu soog yow defu ko dafa wàcc tali bi yéeg ci passerelle bi piéton yi war jaar am ñu gis fi mu jaaxal leen ab taximan ci kaw pont piéton ñii foto ko ña ca des ko ñu dugal ko ci internet bi àdduna bi ci ñi njëkk a ñaawlu jëfi taximan joojee observateur nañu Mansour Eliman Kane la mi ministre transport terrestre police jël yëf yi di wër wata ak wata yi jaaroon ci kaw passerelle bi ki ñu ci njëkk a jàpp démb la ko jàpp mu di Ousseynou Diop dëkk ca Morolan doon dawal taxi bii di DK 75 32 R Walfadjri nañu taximan bi internet bee ko daaneel populaire nañu moom la loru bàjjanam mooy noppam ne du moom dong moo jaaroon ci kaw passerelle boobee passerelle ba keroog rek yaa nga ca le témoin nañu borom oto yi jaaroon ci kaw passerelle bi am nañu coow lu toll ne coow la bësoor ga amoon ba mu tamee dammel ne kenn ci ñoom mu di taximan ba jàpp nañu ko démb ba mu ngi ci garde à vue am na yeneen juróom-benni wata yoo xam ne le témoin nee nañu ñoo ngi wër seeni borom ginnaaw Ousseynou Diop di taximan ba ca police ñu seeti Aram Diop ñu ci enquête mooy nday Elas Diaw Elas Diaw di étudiant bu a keneen di Aram Diop mi ngi ci fitna mi ngi ci naqar mi ngi ci xol bu jeex ci enquête dina kay soxna si di fa tiinu Macky Sall di ko ñaan ci turu mboolem ku di yaay ci Sénégal ngir mu jéggal ñeenti xale yi ñuy téye ci kaso bi Aram Diop nañu li ma koy ñaan moom Macky Sall moo di na xam ne amul kenn ku ñuy jàpp doomam mu nekk ci jàmm na leen baal na leen jéggal te seet bu doon tay mooma ne jaboot ju nekk jaboot la laa si ne kay nañu Aram Diop muy ndey Elas Diop ba jàppee Bassirou Faye dóor ko balu fetal ci bopp mu jaare fa dee te ba fi nekk nii dara lu leer amagu ci enquête bak ni ñu ko taf tafee def ko mbirum yëngal taf yëf yi mi ngi tàmbalee feeñ enquête bi ñuy def ngir xam lu leer ci coowal bomb li ñu doon wax ne moo waroon a kalaate ci Radisson libération xam na slëf ci enquête boobee ba xëy ñu ko yeggee mu di waa di division investigation criminelle xam nañu waa ji woote ana fan la woote ma nga woote amul sikki sàkk ci ne ki def loolee dinañu ko jàpp ci populaire ministre intérieur nañu fa du yomb nag ndax numéro bi di numéro Sénégal doomi Sénégal yi ñu jàppoon ca Gabon ñibbisi nañu le quotidien nañu ci anam wu doy waar triste retour au bercail ñoom doomi Sénégal yooyee toll ci juróom fukki doomi Sénégal ak ñaar yegsi nañu ci réew mi ci l'observateur ñu fay nettali coono ba ñu dund ca Gabon Macky Sall observateur nañu séddale na leen fukki million ngir ñu jàpp ci ñu jàpp ci l'observateur ba mu dëgër xooli Karim Wade ne woon siis bi di Amadou Bal du bokk ci ñi atte Karim Wade ne Amadou Bal moo ne woon directeur de cabinet Aminata Touré ba muy doon ministre de la justice ñoom avocat yooyeeg loolee ñu doon ñaxtu l'observateur nee nañu cour suprême àndu ceeg ñoom Karim Wade beneen jël teg ci cour suprême dafa sàkk mu fay ñeen fukki junni ci moomi le mbir mbir meneen ci l'observateur mu di dongab daara ba ñu rendi woon ca Thiès fa jëlee ay gaañu gaañu mu masawu leen yéen a kaay bi dañu waaye Anta Sarr Diako ba muy dem 700000 la fa yóbbaale dem jël 200000 ya jox ko njabootu taalibe yi jëlee ay gaañu gaañu ci mbir ma ñi nga xam ne ñoom la ñu rendi seen doom ñu jox leen 500000.